liy dee ci tali bi tey accident di ko waral euh, bëri na lool bu ñu sukkandikoo nag ci agence nationale de la sécurité euh, routière ñu ne nag euh, lu toll ci cinq cent dix neuf personnes ñàkk nañ seen bakkan ci kaw tali bi ci loo xam ne ay accident la ci atub ren bi dong loolu nag mu ngi am ci diggante le premier janvier jàpp le 30 septembre. ci ab classement boo xam ne EduRank ñoom ñoo ko amal te sax ñu cay xool université nga xam ne ñoo gën a xarañ eh, ci àdduna bi classement boobu nag eh, ñeel 14131 universités ci 183 pays eh, ci àdduna bi ñu ne nag université Cheikh Anta Diop bu Dakar moom rek sax mooy université bu Sénégal boo xam ne bokk na ci 100 premières yi moom nag université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu ne fii ci Afrique francophone moo fi jël première te koy xool sax 28e. la jël ci continent bi bu ko xaymaa nag euh, ci Sénégal gi yëpp li nga xam ne moom mooy Sénégal kon quatre vingt dix pour cent la jël ci rang mondial euh, te it Sénégal moom mooy euh, dixième ci booy xool kon ci classement ci Afrique. Kaliphone Sall yoon nag euh, joxe na dogalam ci mbir moom nga xam ne moom moo amoon ci digganteem ak euh, kii di Adji Thiaré Diaw moom nag yoon daka teg daan euh, ci daal six mois de prison boo xam ne nag benn mois la cay tëdd ba léegi itam war ko fay lu toll ci cinq cent mille Euh, francs euh, de CFA kon bu weesoo ko tëdd dina fay cinq cent euh, mille francs ci loo xam ne kon ab amende la. xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleeg Nigéria foofu nag ñu lu toll ci cinq cent personnes ñàkk nañ fa seen bakkan ci diggante mois de juin. ak léegi muy ay taw yoo xam ne nag kon dafa doon am taw yoo xam ne sax taw yu am doole la ba tax kon lim bu takk boobu ñàkk ci seen bakkan nee na ñit lu toll ci un million quatre cent mill ci ay nit daw nañ seen i dëkkuwaay gannaaw bi nga xamee ne kon ndox moomu yàq na ko. réewum si nag fi mu nekk nii dañuy dund ay jafe-jafe gannaaw bi nga xamee ne nag essence moo fa manqué loolu nag ñu ne mu ngi ñëw sax ci jamono joo xam ne kon lii di denrée de première nécessité kon it. Euh, dafa nekkoon ci ay jafe-jafe ba njëg ya yokk fi mu nekk nii nag ñu ne essence daal moo fay euh, doom bu góor ba tax kon daal ay euh, activités yu bëri dafa bloqué ñëw yokk ci coono yi nga xam ne kon amoon na fa ci wàllum koom foofu leen ca Tunisie. xibaar bu jug réew dañ koy tàmbaleeg réewu Europe yi nga xam ne nag fi mu nekk nii daal dañoo daw utali Algérie. ngir daal kon euh, séq ak moom daal ab lëkkaloo ngir mu leen di jox gaz gannaaw bi nga xam ne nag euh, kii di Russie daal dafa euh, téye li nga xam ne moom mooy gazam bi nga xam ne moom la leen doon jébbal li nga xam ne nag moom mooy commissaire européen de l'énergie démb demoon na fële ci Alger pour séq waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité ya dañ koy jeexal ak guerre bi nga xam ne mooy am ci diggante Ukraine ak Russie démb nag communauté internationale fële ci ONU Euh, jot nañ voté kon li nga xam ne moom mooy résolution boobu nga xam ne dañ caa bëgg a teg daal kii di euh, Russie ay daan gannaaw bi nga xam ne nag ñoom dañoo tegaat loxo ci ay dëgg yoo xam ne mu ngi nekk foofule ca Ukraine résolution boobu nag lu toll ci cent quarante trois pays ci cent quatre vingt treize euh, voté nañu ko Sénégal sax ca la bokk loolu ñu teg ci xibaar kon ndox seen tool lañ jox dañuy ëllëg jàngee ji.